Modou Lo Ama Baldé noo ko gisee. combat bu neex combat boobu ba ma siy wax boobu taxawagul Lamine bu Lutte TV sama xarit forever xam nga la moo ma interroger ma wax si déggoon naa si nag lu nekk si internet yi saaga nañ ma si wax nañ ma si lu nekk. ah loo ci wax bañ lay saaga. ah mais dama wax ne combat dafa war a taxaw boobu taxawagul. parce que bu jaadu la pour mu taxaw loolu laa wax nit ñi lu nekk dégg naa ko si si internet bi damay seetaan ki commentaire yeeg lépp tey mi ngi nii taxaw na. mais combat bu neex la combat boo xam combat boo mën naa ne moo dàq si combat yi dañuy ñaan lekk yàlla ñu yàlla na teggil balaa bi nekk ci dëkk bi te incha allah ñu ngi ciy rafet njort parce que promoteurs yi ñu ngi tëgg rek. ñu ngi dugal avance ci balaa bi. Hmm. lan moo ci nekkoon avantage ki nga xamante ni mooy Modou Lo ak avantage ki nga xamante ni mooy Ama Baldé. lu si nekk avantage u Modou ak avantage u. Ama Baldé avantage u Modou Lo de man pour man xanaa bëreek ay magam ñëw wàcc ci bëreeg ay rakam. te mën naa ne sax du ñu ay maga ñoom ñaar rawanteew parce que koo bëreel mbapat rawanteewoo leen dara. Modou Lo la ma ay maas lañ. Modou li si avantage mooy mu am si ndam pour man. non comme nu mu ciy bëree. xeex bi wala bëree jàppante bi. nu mu ciy bëree xeex jàppante bi yëpp. surtout maa korom kor bi. te loolu xam naa Ama Baldé sañu sañul dof di di bàyyi mu koy kor di joxe bopp bi ñu koy kor loolu moom xam nga ku si ne xam nga ñoom ñaar ñëpp daa ay ay làmbaloog lañ man loolu xam nga mu da nga laaj ñi nga xam ne ay amateur la ñoo yooyu noonu mais bëgguma si sax wax parce que loo si wax rek ñu ni kii dafa farak wala dafa def ni wala mais combat boobu komba daxu ko combat dax risque la nag. risque la nag risque ci kan si Modou mais combat daxu ko. soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax ak looy looy wax waa Tëngéej ñu waajee ko combat waaw kàddu yu mujj yi mooy di leen sant di leen gërëm rek di leen ñaanal seen sit bii nii sama xarit wasaare Fatima mu ngi fa woon mais of na. di leen ñaanal li ngeen bëgg yéen a ko xam suñu borom may leen ko di wax waa tëngeej nag parce que booy aw ma lu dul tëngeej ak sama xarit bii nii sama gaay bu ma limee damay juum sama mafia bi xam nga maa ngi bëggee ñëpp di leen wax Mama Yaa soldaaru Bamba am na komba xam nga di sant sama papa sama papa génn àdduna di sant sama yaay di sant képp ku génn àdduna ñu ngi lay ñaanal yàlla suuf woyof sa kaw ak Pape Bouba Diop mi génn barkee Dembo Ndiaye ñu koy jooy te noppeeguñu papa yàdd laa waroon njëkk a waxee parce que Papa Yade kenn la woon si ñun xam nga wax dëgg yàlla tey ba léegi gaa yaa ngi koy jooy ba léegi nii may wax ak yow gaa yaa ngi jooy Papa Yade di ñaanal ñëpp ñu génn sama turandoo ba Badara Mama Yacine moom daal at bii moom doon na at boo xam ne duñ ko fàttati ba ilal abat metti na nag trop mais yàlla nañ dem ba koy nettali si ñuy sët di ñaan monsieur le maire sama maire dama am maire bu bees Tëngéej muy Lamine Diop waaw te combat ba moom du ma fi wax nekk di ko woo mais daal mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom may Lamine jóob ak tëngéej nag parce que ñun dara ñoruñu lu dul tëngéej dara ñoruñu koo xam ne bu jógee tëngéej jóg xam nga mooy loolu am na loo xam ne nag mënuguma si wax comme te dañuy doog a tàmbali bëgguma wax lenn kiiwuma daal mais xam naa ne waaj daal waxal la te dina wax maa ngi koy déglu. Euh, Ale ak Ousmane Ndiaye maa ngi leen di siyaar di bëggee nag waa tëngéej policier yi tëngéej am na policier am nay sapeur xam nga te ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib lii dama bëgg ngir yàlla. nga nga jàllaleel ma ko ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne macha allah yàlla na leen yàlla kàttanal dooleel leen parce que policiers yi man xam naa si dara surtout ma procureur tamit sama xarit la mu doon nit ku baax xam nga di leen wax daal maam may am na combat maa ngi bëggee ñëpp. noonu lay demee ci wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëgg bu baax di wax kaa doole ne ko nañu xaar ñoo ñëw waxtaan ak moom ci làmb ji comme que sa waay nee na ala waxaa lay naan day wax maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy ndayama di ko anticiper borom la 15 kooku sama mag la sama xarit sama jabar sama lépp di ko wax joyeux anniversaire di nuyu ki nga xamante ni nii mooy Aziz Fashion boom Colobane di ko wax ne loo jaay baaxul loo jaay lu ne baaxul koo sañse lul du sañse di la wax ne taalibe sëñ Babacar maa ngi lay jox loxo bu baax a baax. jox dig daje ba beneen